bu la neexee tàllal loxo yaay docteur bi faj xiifu askan bi li ko njiitum réew ba ci miskin yaa summe ko di daan sa doole ànd ak naaj bi di liggéey sa ñaq di tuur ngay bay di dukkat billaay yaa am jom kon jaaraama baykat bu fi xiif dundal ba mu jëf man maa ngi tudd Basirou kan ah maa ngi euh, dëkk fii ñuy wax Bagne Fall nekk ci commune Pire piir gu rëy alors donc euh, projet bi ngeen visité tey c'est un euh, tool ferme familiale lañ koy wax ferme familiale mooy tool boo nga xamante ni comme ni ñu ko daan waxee ci jamono yu njëkk ya too kër waa mbaa toolu ginnaaw kër. léegi nag euh, idée projet bi moy dañ ko bëgg moderniser ndax tool bi euh, comme ni ngeen ko gissé ñu ngi ko ñu ngi fi def ay investissement yu am solo gas nañ fi ñaaru ten yo nga xamanteni mi ngi fonctionner par système solaire euh, defar ben château d'eau bo nga xamanteni 50 mètres cubes la ak ben poulailler de 3000 sujets capacité donc c'est sur deux hectares. donc ci la ci la ñuy liggéey euh, euh, ci def maraîchage alors idée bi que bon yàlla dafa dogal comme fi Bagnfal, Fall ci dafa am chance am ay projet yu fi euh, projet KMS 3 bi mooy conduite 800 bi jëm Dakar ak projet haute tension yi ngeen di ak bi ak bientôt projet autoroute à Dakar Saint-Louis dafa dafay dafay nekk ay projet yoo nga xamante yu ci bëri day jaar ci suñu tool yi man nag le defal bi projet KMS 3 bi jaaree ci sama

ci lañuy ñuy liggéey ñi nga xamante ni euh, samay grand frère ak samay petit frère jigéen ñi aussi dinañ ci intervenir mais généralement ñoom euh, période bi nga xamante ni ci période de récolte yi euh, période d'ensissage yi mooy def kii ci kii ci la ñuy liggéey wala période abattage genaar yi ci la jigéen ñi di gën a intervenir mu nekk projet boo nga xamante ni nag tey alhamdulilah parce que du moom rek moo fi nekk projet ci dëkk bi am na fi ay yeneen projet yoo nga xamante ni de la yu mel nii yoo nga xamante ni ñeneen ci dëkk bi ñoo nga xamante ni dañoo jël seen propre moyen euh, def ko am na si tool yoo nga xamante sax boo xoolee ñoo gën a développé euh, tool bi pour wax la ni la rek comme euh, mi ngi commencé nekk benn idée boo nga xamante ni mi ngi germer ci population villageoise yi nga xamante ni léegi xam nañ ni léegi mbayu nawet donc mënul yor nit donc il faut ñu def beneen système de agricole bu moderne te loolu mooy maraîchage bi ak élevage bi am aussi élevage euh, bovin nak tey bon comme fi amul sécurité mais bo démé ci biir dëkk bi am fofu ay ferme nak yor ay nak yo nga xamanteni dañuy produire lait euh, sow di jaay euh, di jaay di di di jaay aussi nag yi bu ñu demee bu ñu leen engraissé ba ñu ñu leen jaay lool aussi lu récurrent la ci dëkk bi. am ñu gas seen teen kër go gis ci dëkk bi tay gas na teenam donc finalement finalement day idée projet bi day dem ba développer wu ci dëkk bi yëpp nga xamante ni famille bu nek dañuy xol seen benn tool bo nga xamante ni tool bu bax la ñu gas fa seen ten ñi nga xamante ñu ngi ci biir kër gi ak ci liggéeyuñu ñuy liggéey ci tool bi. bo avancer ci tuuti rek ci côté di nga gis benen tool nga wëraat demat ci kaw di nga gis benen tool lu wara mat ay 4 tool ba 5 tay ji amna fi ci ci ci dëkk bi te inshallah dina dem ba ñëpp dinañ am ñëpp dina am même bu maraîchage bi sax tay bo xolé all bi ñëpp tay ñu ngi def lu ñuy wax arboriculture nga li wër tool bi yëpp ay tool yu am ay mango la ak darkase donc au delà même de maraîchage ñu ngi def li ñuy wax arboriculture di produire mangue ak ak noix d'acajou di ko waaw li ñu mën euh, li ñu mbëbët mooy mu yaatu ba finalement du yam ci dëkk bi rek mais mu yam ci mu dem ba commune bi yëpp commune Pire yëpp am lu mel nii loolu nag pour mu am dafa laaj dimbal nimbal bu joge ci autorité locale yi waaye aussi nimbal bu joge ci état bi fi euh, projet bi man ak samay frère ñoko ko bokk bi DER bi ñëwee bindoon nañu suñu demande de financement waaye yalla dogal amuñu won financement te lolu aussi defé na ni bar nañu bindon ci dëkk bi amuñu euh, bay nak surtout agriculture moderne dafa laaj moyens yu bari dafa laaj ay moyens dafa laaj xam-xam d'abord man bi commencé tol bi dama sama frère dama ko jël yóbbu ko centre de formation en horticulture bi nek Cambérène mu def fa formation pendant un an lolou aussi moy première chose à faire formation yi xalé yi bëgg def li wala ñu ñiko bëgg def il faut ñu former ñi nga xamante ñoy nek ci tol bi formation bi nak il faut état bi japp ci soit ñu yóbbu leen ñu former leen wala état bi déployer ben dispositif ñëw fi def li ñi wax renforcement de capacité manam fekk ñi nga xamanteni ñi ñu ngi koy liggéey ñu former leen gën leen a renforcer moyens financiers yi nag mooy li nga xamante ni moom la ñuy séntu ci état bi d'abord il faut régler la question foncière te loolu euh, li ñu ko mën a régler mooy fexe ba tool bu nekk état wala mairie man koo délivrer un papier boo xamante ne day wan ni tool bi yaa ko moom sañ nga ci investir parce que bu amul papier boo wane ni yaa moom tool bi mënoo dem ci banque mu jàppale la donc loolu aussi il faut que état maire bi djima xam pour délivrer des documents administratifs yu leer ni nga xamanteni ni dondo toli parce que Toli to ay la suñuy mam ñoko fi sampon suñuy yor ba mu ci loxo ñu war ak donc bi tamit donc état état bi tamit duggal ci loxom xamni tay ji bu ñuy wax chômage des jeunes bu ñuy wax euh, immigration clandestine. c'est parce que xalé yi dañu amul ci luñu japp mais ku am tol bu melni doomu sa xalat mukk naan damay jël gal di ca dem di ray sa bop parce que capacité poulailler bi waxna la ko 2000 poulet lay jël par par bande de 1000 lañuy duggal fi nek ni dañuy dug bande bu bande bu mujjon duggal ci kasso rajab gi la jeex légui ñu waron def repo nak pour mëna nettoyer wat désinfecter wat poulailler bi pour mëna duggalat tol bi aussi gis nga ko day produire 12 euh, mois sur 12. Euh, wax euh, jël boole koog nag mango yi ak darkase yi donc lolu bo demee Europe mënoo ko fa liggéey te nak euh ñun ñoko ko defal suñu bop mais état waron na mën a ñëw tey renforcer infrastructure parce que problème bi gën mag ci jafé jafé yi moy ndox ndox mo gën jafé parce que fi nappe bi à deux niveaux lo nek y suis à 20 mètres moy nab superficiel bi ñun ci pomper mais nab bobu par exemple pour euh, pour 50 mètres par jour il faut que am ñaari alors benen nab bi ci des moy nab maastrichtien moy bu bi ta lolu état rek def forage bu donc état tay ay forage ay batterie de forage une deux trois fi trois forage dina mën a arroser toolu village yëpp benn forage sax benn forage rek bu ñu ko amoon boo xamante ni mën na produire par exemple euh, ay quatre-vingts mètres cube heure euh, war na mën a arroser àll bi yëpp. beneen bi tam beneen bi tamit mooy wàllu écoulement produit yi li ñuy bay ba pare buñ ko bayee ba pare fu koy jaay loolu aussi naturellement ñi nga xamante ni ñooy liggéey ci tool yi. ils s'organisent dañuy organiser pour mën a xam fi ñuy mais tay état waroon mettre en place le collectif local bi ben marché de légumes boo nga xamanteni ni dañuy fexe mu am ay relation ak distribution espace distributeurs yu mag yi nga xamanteni comme niñ ñu doon def ñambi ji bu njëkk parce que ñambi léegi amatul mais comme li léegi mo commencé di remplacer ñambi. dañu waroon fexe ba nga xamanteni ni dañuy mettre en place ben ben marché de vente de légumes marché bobu nak day am ay magasins de stockage ak magasin yo xamanteni ni di nga fa mëna conserver say say produits parce que amna na produit yoo xamante par exemple lu mel tomate boko ko récolté mënul yag kaani boko ko récolté mënul yag parce que bu yagé mën na yàqu donc bu amé ay ay moyens de conservation yo nga xamante ni tey collectivité locale bi defar na bo produire ñew stocké fofu ñu mettre fexé ba am ay relation ak ay grands distributeurs yu melni ay Auchan ay Supéco ay ay une grande surface yi Dakar directement donc difficulté yi donc trois niveaux la formation euh, investissement et financement mais aussi écoulement produit produits..! Donc, loolu pour cela, mais il faut gouvernement le gouvernement essayer de montrer le bon exemple maintenant wane yoon wi nag boo gisee ñu koy def mooy par exemple euh, nekkuñu fi ñuy décider maanaam ci mairie bi wala faneen mais au moins en tant que un citoyen lambda mun nañu wane loo nga xamante ni tey jii ku ci teg bët di nga xamante ni kii wala ñii tey bu ñu nekkoon ci au niveau des instances de décision lii ñu créé ñoom dinañ ko mën a répliquer dinañ ko mën reproduire avec des partenaires financiers techniques et financiers à travers toute la collectivité locale. loolu nag euh, ñu ngi ci xalaat di ci réfléchir ak ay nit ak ñi nga xamante ni ñoom la ñu bokkal langu bu ma wax langue politique parce que ñun suñu activité mi ngi gën a jëm ci développement local ay acteurs de développement lañ acteur de développement nag euh, mën nga defaree ba fexe ba développer sa gox te doo nekk ci parti A wala parti B d'ailleurs la meilleure idée mooy fexe ba regrouper parti yëpp pour que ñu am benn objectif mooy développement commune de Pire développement commune de Pire nak mënul am mënul am te jaarewuñ ko ci agriculture avec le grand A parce que la commune Pire est amul usine amul sax ben ben entreprise bu mag bu bu recruter lu mat personnes par jour wala 50 personnes donc c'est c'est une commune rurale agriculture rek lañu que def pour développer ko c'est à l'instar de toutes les collectivités locales, presque toutes les communes rurales du Sénégal. commune commune rurale Sénégal sont boo ci la donc nous.. Nous dañu bëgg commune pilote Nous avons bu ñu conseil municipal Ou à la tête de cette commune là Nous avons def pire une commune pilote en matière d'agriculture et d'élevage Nous avons koy defee partenaires financier ñoo nga parce que problème bi souvent amna, na xam-xam baa fi moyen pour génne ndox mi moo fi des bi aussi mooy loo bay nit ñi jënd produire nit ñi donc dafa laaj benn organisation boo nga xamante ni rek population yi dañ ciy jàpp état central jàpp ci mais collectivité locale bi porté ko mu nekk projet collectivité locale fexe tey ba toutes ces terres là mu nekk sur des centaines des milliers d'hectares, hectares mu mel nii verte ñu koy arroser. te loolu mun na nekk mun na nekk boo demee dans les pays que ay Maroc Tunisie ou la France jafe na lool ngay daw ci ci ngay ngay daw ci àll bi di gis ay ay zones yu wow lu verte rek ngay gis lu verte rek ngay gis donc dangay gis ay tool yu ay tool yu ñuy yu ñuy béy qui s'étend à des milliers d'hectares. donc loolu war na mën a nekk. développement bi wax dëgg yàlla jafe na jafewul jafe na ndax moyens yi nekku fi mais yomb na ndax xam-xam baa ngi fi te wax dëgg yàlla ndaw ñi lu ñu leen mën a waxal euh, yaafus bokk ci bëgg nañu liggéey bëgg nañu liggéey mais yoon wi lañ gisul amuñu moyens yi donc nag ci loolu nag ci la état war a xar tànk tubéyam ñu génn Dakar génn grande région yi ñëw ci àll bi fi bu nañ fi def lu lu doy war fi ci all bi ñew ci all bi fexé créer des points d'eau même bu dé problème ndab bi sax dafa am problème fi ñetti canal ñetti conduite d'eau mi ngi fi kan ñetti conduite d'eau yo nga xamanteni mi ngi joggé lac de guerre jëm Dakar bi ñu mujjé poser moy bu 800 mètres cube bu 800 mètres même bu dé sax geej geejju sa ndar geej ni lac de guerre du jeex c'est une source inépuisable tant que fleuve du Sénégal wowul lac de guerre gi du jeex donc même bu fekkee dañu am problème pour créer des des des des forages conduite lac de Guiers yi mënoon na arroser Albi. bi yëpp mun na ko arroser loolu volonté politique la bu mag a mag lay laaj volonté politique euh, au niveau euh, plus haut plus haut niveau moi le président de la république am un projet bu mel noonu porter projet bu mel noonu ba pare nag.

à l'instar sarde yeneen village yi ko wër yëpp ay njiite sañu xoor ay Kër Saala ay euh, Njeng ay dëkk yi nekk fii yëpp nit ñi fi ne jeunes yi fi nekk bëgg bëgguñu jël ay gaal di ci rey seen bopp waaye bëgg nañu liggéey te am nañu aussi ay idée pour liggéey ndax àll bii ngay gis yëpp ñaam lañ fi daan béy ak gerte ak dugub pendant des pendant deux décennies. ñu ngi bay ñam ak dugub dem nañ ba tol bi bo ñu musana bay ñam bi da nga ci produire ay lu wara mat ay 4 tonnes 5 tonnes mais légui boko ci defo boko ci boko bayon ñam bi mëno ci am sax euh euh 100 kg ñam bi motax légui ñu tourner djublu ci maraissage bi ñu def ñu leen wax ni bu ngeen ñëwé fi jappalé jeune yi fi nek parce que wax naa la ko sama njëlbeen tol bi rek neeku fi da ngeen ma bett moo tax mais kon damay informer yeneen ñi yor seen tool nga dem nga dem visiter ko am na yeneen tool ak yeneen poulailler yu fi nekk te yooyu ay jeunes ñoo ko créer nekk fi di produire donc loolu nag li ñuy ñaan rek mooy appel bi ñuy def rek mooy ñi bëgg nañ ko yaatal bëgg nañ non seulement ku ñu ci fekk si dimbali lañu si ci ñaari niveau mooy financement ak xam-xam parce que boo génn Dakar tey jël autoroute Ila Touba bi boo koy jël rek. boo xoolee sa côté droite ba gis chinois yi nekk foofu di bay foofu ku nu woon dinañ fa mën a def ba bay fa lu produire lu toll noonu ñu bari ñu ko gëm donc ñooñu xam-xam la ñuy liggéeyee ñun aussi suñu xam-xam bopp la ñuy demee ah donc état bi moo war a mobiliser ay experts yoo xamante ni état moo leen di fay mais ñu ñëw fii loger fi di appuyer euh, ñiy liggéey gratuitement ñu tegaat aussi yeneen experts yoo xamante ni da leen

moo xam usine lay doon moo xam leneen lay doon donc li ñuy def appel bi ñuy def mooy euh, renforcement de capacité ak appui financier pour que euh, affaire bi gën a yaatu ñëpp gi ci seen bopp président de la république boo defoon tey ñi doon sànni xeer fan yii ci kii bi ñooñ ñëpp boo leen boo leen xoolee mën naa ne quatre-vingt-dix pour cent ci àll bii lañ dëkk dem Dakar doon jaay ay téléphone portable ak ay fi écouteur ñu xëy xëy ak di jaay gerte caaf ñu xëy xëy liggéey ñoo doon ñu ci bari investir ci bi dañuy si ci àll bi liggéey toog ci ci ci kër une solution à plusieurs niveaux la jeunesse sénégalaise c'est une bombe à retardement parce que mënoo yorum réew boo la

def ay projet ay programme parce que wax deug yalla côté formation professionnelle état bi def na ci lu béré béré béré béré côté financement des jeunes aussi état mettre en place ay dispositifs yu béré mais ñi ko yor nañu wacc ci all bi ñew fekk ci jeunes yi ñëw gis li gaay di def fi ñu proposer leen des financements yombal financement yi encadrer leen. voilà donc un point bi may soulever di mu nek un appel que je lance aux bailleurs de fonds la banque mondiale l'AFD la banque africaine de développement. Euh, les fonds européens de développement. Nous avons financé les projets qui ont un impact sur la population. Je suis très bien, nous avons conduit deux jarnes. Nous avons fait ça a impacté, impacté tol. Euh, parce que c'était sur une surface de 2 hectares et plus. Mais nous avons tout eu, presque euh, 500 mètres carrés. Nous avons eu une mini-zone ci leen commencé sax investissement Il y a un projet en vie bu fa war a l'autoroute Dakar Saint-Louis Il ngi a sap day juste ci côté de bi alors il projet c'est des projets yoo nga projets ni yu am solo parce que day désenclavé non seulement le village le village de Wurfi. mais nous nous nous def nous def appel à Ageroute ak ñi état du Sénégal que projet ñun à la suite des études d'impact environnemental nous avons def ba buñ on les évaluations environnementales et sociales il paré day am ay fonds yo c'est destiné à financer des activités agricoles pour les populations impactées amna à financer aussi des infrastructures de de base que ça soit des écoles des des magasins de stockage des des aménagements hydro-agricoles pour village man moi j'ai lu le document de projet du du du projet de KMS 3 là j'ai vu que il a été prévu un montant colossal, un montant très important pour faire des financements destinés à renforcer euh, l'agriculture pour les populations impactées. J'ai vu qu'il était prévu des écoles, qu'il était prévu des magasins de stockage, des unités de transformation agricole. Tout cela, je l'ai vu dans le document de projet. Donc nous faisons un appel à l'État pour que ces ressources-là, qui sont dégagées, pour appuyer ces villageois qui sont impactés, soient mobilisées soit mobilisé avant la fin du projet pour que les infrastructures prévues soient réalisées pour moi, il faut que les populations soient impliquées davantage dans ces projets les populations ne sont pas impliquées dans ces projets les indemnisations qu'on paye aux villageois là euh, ou bien à ces populations là ne sont faites sur aucune aucune base tu viens on te fait signer un, un papier après on t'appelle à la préfecture on te donne un chèque tu ne sais pas comment ça a été évalué. On ne te donne pas les barèmes. Il n'y a aucune explication. Les agences les foraines qu'on fait, fait, au niveau de Tivaouane, on n'invite pas les populations les impacter. Alors qu'ils doivent être invités, informés, sensibilisés. On doit les expliquer. Alors le dernier appel que, que, que je, que je fais, c'est l'autoroute il a Saint-Louis, Dakar Saint-Louis, qui passe juste à côté de notre village. Là aussi, je fais un appel à la à la Banque africaine de développement, à tous les bailleurs qui ont participé au financement de ce projet important, qu'il y a des villageois, il y a des populations qui seront impactées. Nous leur demandons de tout faire pour que ces villageois-là, à qui leurs terres seront, seront prises, qu'on puisse les appuyer pour qu'ils puissent faire d'autres investissements, non seulement en termes de formation, mais euh, il faut les accompagner pour qu'ils puissent faire un investissement et, essayer de, de, de, pratiquer d'autres activités qui puissent leur permettre d'avoir des revenus. Ensuite, les villages qui sont séparés. Vous voyez, la route qui va passer ici va nous séparer du village de Ndjite Alors, donc, il y avait une piste qui reliait ces deux villages-là. Il faut que les, les, les, les, ingénieurs et tout essayent de prévoir des voies qui, puissent qui permettront euh, d'assurer la communication entre ces villages. Il ne faut pas qu'on nous qu'on nous sépare définitivement de ces villages ou que pour aller à Ndité, tu seras obligé de faire le tour pour aller là-bas. Donc il faut que nous nous pour que Talibi nous séparent avec les villages. Parce que les villages souvent de 600 mètres, mais ils sont des ñoo bokk sont mbokk ils fay ñoo ne ay pas lépp donc Talibi ci village nañ ñu dimbali ba nga ñu prévoir ko nit ñi mën a continuer di dem di dikk xaalis bi nga xamante ne aussi moom la ñuy fay villageois yi te ñi nga xamante ne dañu nangu seen tool nan ñëw expliquer leen ci yan base lañ leen koy fayee yan calcul la ñuy def ba ñu comprendre beneen bi aussi nañ ñu booleeg ay experts agricoles ak pour ñu mën a appuyer villageois yi nga xamante ne nangu nañ seeni tool pour que ñooñu ñu mën leen a jàppale ñu mën a def ay installation former leen pour que seen tool li ñu doon am ci tool yooyu dañu nangu ko ñu mën a def ay yeneen investissement yoo xam ne dinañ continuer di ci tedd projet baxna mais ben projet warul ñew pour xagn nit teranga projet bu ñëw dafa wara yok teranga askan wa waye warul xagn teranga askan wa d'autant plus que projet bobu projet la bo xam dafa romb rek parce que talé bi ndar la jëm donc xagn dinañ amal ay bretel pour ñu mëna accès suñu village waye nak destination bi du fi comme dafa romb nak te am ñu ñuy yakal nañu fexé ba talé bi am euh, am impact ay impact positif ay externalité externalité yoo nga xamante ni day positif nit ñi mën ci gis seen bopp te loolu nag pour ñu mën ko def mooy ni ñu tàmbalee baaxul parce que dañoo xëy gis leen ñu commencé natt alors que dañu war a ñëw organiser ay audience ay dajale population yi moo xam maire lañ koy defee moo xam préfecture expliquer leen ne am na projet bu war a jógee Dakar dem Saint-Louis nii la toll nii la war a jaar ñaata milliards la kii ak kii kii moo ko financé ci ñaata mois lañ koy def.

xam nga état amna bunyi projet bu ñuy wax les domaines agricoles les DAC mais commune bi yëpp amu fi fi yëpp amul DAC bon amna ben ben anida bu nekk fi Kër Galo Kébé mais ñun mosuñu leen gis te pourtant état moko moko réaliser def fa ay techniciens yoyu mais ñoñu ñoo waroon tay wacc ci terrain bi ku fekk ngay bay comme ni waa Descos di fekk ku tabax ta tabax ta tabax baaxul ñu ne la wula amoo autorisation ñu bind arrêt ñoom ñoo waroon yor seen i moto wàcc si terrain bi ku ñu fekk ngay bay ñu ñëw app bu la neexee tàllal la say loxo yaay docteur bi faj xiifu askan bi li ko dalee si njiitum réew ba ci miskin yaa summee ko di daan sa doole ànd ak naaj bi di liggéey sa ñaq di bay di duggat billaay yaa am jom kon jaaraama baykat bu fi xiif yaa ko dundal ba mu